Ya Allah Ya Allah Lo ci ñaan may la loo ci jéggalu mu baal ci la ngëneel yi tàbbe Ramadan Ramadan ya karim Ramadan

sa taat yu mat ñaari kilo nga tëdd fii naan da ngay xaye ah, waaye kii kii kii xam na boppam sëñ bi kii xam na boppam bu ndox la ma wax doo war te fii suñu placement la kër gi dañ koo classé ba mu normal waaw ah kër gi classé nañ ko aaw bi mooy Barça ñaareel bi mooy mooy Royal kii mooy mooy mooy Karim Benzema may may Mohamed Salah nay wuy ma fii amoo fi wàll de day leen sa teratu wàll day leen sa teratu wàll daal waaw bañ na tooj sa morom Koulibaly kañ la daan attaque dugal eh, eh, te na ñàkk ah, de man koy peso yi dafa dër piis gën a bon si uh, an mooy paa yu manqué yéen ñaar ñii. ah nugum nugum ak nugum ak paa noir. paa noir paa noir booy mënuma ko bàyyi wax. su ma waxul paa noir ponson la lay wax. ponson. façon ne óol ne óol ne óol bëggoo ci benn bëgguma ci benn dama woowee sama tur fii dama fi a tëdd kon ñu tuddal la paa pis paa la wuyu ma na jóg na jóg na jóg defal ndànk rek nan ma laab moom rek wuyu ma lam dimbali ñu nga jóg ndox waxoon naa bi neexut ak kii booy wuy ma yaa ngi sama jant bi yaa ngi sama jant bi wuy ma la wuy war a génn no ko moytul xale bi ki kii kii ah. moytu yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi may àjjiri. jaaram eh, di rek. waaw waaw jërëjëf. te biti. te biti. mu génnul nag. waaw génnal rek. mas naa la ak moom waaw génnal. yëg naa ci fii mel ni miis la génnal. tim waaw Pape Mande ma dama ko Pape Mande. waaw jërëjëf dama ko Pape Mande man. waaw jërëjëf jërëjëf. ah yaa yaa ci yam yaa ci yam. yaa ci yam de alhamdulilah wax ba mu ah, seede ah, baax. waaw kay yaa ci yam. yaa ci yam. li ñu dund ak moom ci kër gi kii bu ndox mi. bu ci kilifa gi wax rek comme kilifa gi mom ah, baxna lu neex jabot gi neex na baxna ki fi lañ ko fekk mu taal kilim bi muy fërërër yi wóorul kilim bi muy fërërër ni wax ak mom mu dugg ci sama nangam nangam yi ba nopi taxaw da di la ñun baax nan lu ki nangam di nugum nugum ak bopam bi melni furna fur xale bu tollo ki makke nak nag dana maslaa ki mak comme ko tollo nak ñu bi muy tal lu ne mu dugg te du woon Royal Madrid mom li yag na fa Royal masla rek mom ci dan xam nga ni lako fa tee ba masla la ah. man kat dama war dama xam ni bumbux mi war naa tëdd fii kilim bi muy fërëra ñun ñu di ay mak wor eh. ta bo wax ak mom deugat bop gi ne ci moom te bu xamoon njariñal boppam bi ku mbëkk nga musib manam manam man manam man ki am am nga géwalub judd ñu lay wax sa bop géwalub judd am nga ko lan lool loolu géwalub judd boo ko wax bopam rek ki xamul bopam waye tamit nag tonseer tamit xam nga jafe na léegi xale bu tol ni ba pare di wo ta mom mi dafa wo lan c'est normal ma ñëw taal kii. may Lagos kii ah. xanaa du ngeen waxtaan yéen ñii seen waxtaan yi am na réeroo de. kii dafa wor loolu la ma sànq ci suuf. ah moom day wor ba 10 heures mooy ndékki wala bu 11 heures mu lekk mburu wala yooyu. Ah. moom mii wóorut kat ndax ñoo ko fekk fee. kii chaque jour fee lay làqu di ndékki. nogam la nogam. laajal sax ba eh nogam. seen ab baa ngi bi maa ngi kii bi. <laughs> vidéo ba maa nga bu noo bu wóoree ba si moom rek gàcce dal ko. umba ñii umbu leen ñii. wax dëgg ma wax ah! dëgg moom moom ump na leen moom. Ah, ah, doo may fay de eh, doo may waa taxaw doo taxaw waaye taxaw rek ma arrangé yéen tamit nag. yéen tamit comprendre leen kii tamit xale la waaye tamit toos loolu dëgg la du yoon tamit ndaxte sànq rek cooli ma dégg moo tax ma yee mais ci suuf rek ñetti néeg yëpp kilim dañ koo taal bàyyi noonu. tamit loo tamit rafetul yow tamit nag. am na yoo xamante ni tamit nag rafetul waaw da ngaa war a xam ne tamit sa moom mooy fay courant bi. lépp loo xamante ni moo war ci kër gi moo koy def. moo lay dundal mooy dundal Cheikh mooy dundal mbay moo may dundal di dundal aaw buuru këram. ak ñeneen ak ñeneen. boole ko facture briquet da koy fay. facture courant da koy fay am na yoo xamante ni tamit da ngeen koo war a xalaat tamit nag am na yoo xam ne xel nangu ko kii dama yaakaar daa dugg ci koom xam yi tey naan di menace ci ku daal ci yow yow kooba gi daa métti de te nga essayé kooba gi métti na de day wut ak maas te nga lijjanti le de kooba gi tar na de kooba gi métti na de bu ndox ndogum daa laajut kaana nga kaana nga defoon soog da ko laajut hmm. kaana gi xam nga daa def soog daa daa daa jël kab bi féete la ko ginnaaw tëjee simis bi ginnaaw waaw ba mu defee soog nag maanaam benn paayam ci yaakaar loo suy wëlbatiku benn paa yam yaakaar na loosu moom waaw. mu di ma ne ko kaana laa kaana ka paa bi naan tàngoor wee jàpp rek teel ma nii kaana ba ko. mootul kaana gi nga dugg ngay mel ne sukkandu. mun kay kóor ren gii baax na ma. waaw ba baax na yow léegi yow. royal may nu royal frère bi <laughs> moom ndogu li moom daa mën a ay ay. man na tamit nag ñaari xaritu ci laa ilaaha illallaah xam nga man dama mën ci biir boor mën a ci bee boor wallaay dëgg la fu ma fël rek nga yaakaar ne foofa gën a wallaay ngondom ab a yaay ku ma bañ ku nekk da yaay ci erreur waaye Karim Benzema xamal naa la ñaar waaw ramas tey ngay lekk lu musta lekk si sa àddina laa ilaaha illallaah naan jus bu musta naan waaw teg nga tegal la ci taasu xanaa loolu bégal na la ay way sam xam nga ne loolu bu wàcce ba bu wàcce ba ma war a attaque bol bi nugum nugum ak bol bi nugum nugum ak bol bi bol bi dee na rek ngay dégg nugum ak bol bi may attaqué téye ko gauche mm. dinañ ko droite lu mu gàtt gàtt turu yàlla karande nag moom dinaa ko lekk sa ay eh, loolu ëpp na maa la ko yaay loolu ëpp yow donc ko mën am nag waa tënk maa dem ci <laughs> biir waay merci beaucoup ñaareel merci ñaareel ak sa ak mën ci kii làkk na ngërëmal wàññ bu toggee ñaareel daal bu toggee ay ñaareel bu toggee saytaane pire nga nag yow saytaane saytaane pire nga kan man yow bu ndox mënoon noo may nu àggale suñu discours man man man may nu nu àggale suñu yow yow laa wax na ah. dëgg da ngaa saytaane da ngaa saytaane yow da ngaa say mbir ko saytaane la sa ñaawaay déet waaye kii war na maa xas ci ñaar nan wàcc góor da ngaa saytaane nag yow moom boo toogee ndaw si lu ne nga koy wax lu ne lu ne lu ne. waaw nguur si téema ko nag du ko wax waxal ci lii. da nga ndaw si nag li ma ko wax dëgg la mbay. mais du dëgg. mbay nag. aaw aaw bay ko dàqa togg fopp fopp fopp laa la wax. bokkul Real Madrid ngay tëkk léegi kii bi ndaw ndawaan yi Royal. Barça xam nga Barça yow. ah Barça nag kaay ma xamal la comme toog na ci toog na ci match yëpp fi mu toll nii. guddi àjjuma dem Europa League alxames dong lay football. Europa League guddi àjjuma guddi àjjuma morom équipe yi. la de borom leen. dama ni. Barça Barça du morom équipe yi. kii de du moromum kenn. ndaw si li mu hmm. ki nga àppoo ah, keroog li mu baax. toggal lolo log laal toggal lolo log. kii de chef de cuisinier. kii kii kii université Cheikh di. kii moo fa kii dañ ah, baax na da ko yooyu moom jërul coow. chef de chef de cuisine la muy ma moo aaye sa ndaw si aaye. bu lekk nag ko mën. nga ne ma ne bu lekk ko mënul. Ah, lekk gi sa waaye ko fii di. ah déedéet yow nag da ngaa juum bi nga xamee ni mënul nag da ngay joxe ngant. ndax man kee bu ma ko sikkalee rek ma ci. damay dee xeeb damay damay damay jot sama bakkan sama ruu gi laay jot. non miskit am na ci biti gi. sama ruu gi jot. déedéet du ma war ba ngoon du ma jot sama ruu. ruu gi tey mën nga koo jotee ci terrain. déedéet déedéet baal rek. ah man de ñaareel bi laa fa. donc faral ak <laughs> moom ay sàppar moom de lu mer mer day ah. xel nag dégg mooy ah, lekk del mel ni ku naan ataaya rek du pour biir. baax na jërëjëf